ñu kay dañ koy euh, ak l'observateur bi nga xamanteni mi ngi ci xëtam bu di ñu wax ci euh, ki di Karim Wade ak reconfiguration bi nga euh, politique bi manam remaniement bu bi nga Karim réew mi ba tey ba léegi dellu si waatagul te boo bokkaatul dara ci lu ñuy wax ci wàllum politique ñu euh, wax ci euh, les échos mi nga xamante ni moom dafa xëy di xamle ni kii di Idrissa Seck dafa mel ni rek euh, kuy daw Mimi Touré ndax jàpp nañ ni tey jii bu 11h jotee la passation de service bi war a am ci foofu ci institution bi nga xamante ni foofu la Mimi Touré jóge waaye face à face bi nga xamante ni moo war a dox ci diggante Idi ak Mimi du am. tribune yéenekaay mi ngi euh, xëyee ci li mu duppee benn grosse faute présidentielle muy euh, nomination bi nga xamante ni jël nañu ab avocat tabb ko mu doon agent judiciaire de l'État ñu jàpp ni euh, faute bu rëy la boo xamante ni moom njiitum réew mi moom la def ci wàll woowu noonu Vox Populi ñëw ak ñun ci leneen lo xamanteni waxul ci politique mi ngi wax ci walum malnutrition bi nga xamanteni mo am fi ci Sénégal muy xam le ni téeméer boo jël ci ay ndaw yu amagul sax at euh, juróom-ñaari fukk ya dañoo am anémie té lu ëpp ci ñom likoy waral moy lekk yu ñuy lekk amul fer. ñu wax ci walum sport euh, réew quotidien xey ak ñun ci euh, CNG bi nga xamanteni soppi nañu njit la bi Sène remplacer na ki di Alioune Sarr ca bop CNG ba. bureau exécutif bu CNG la sunu làmb tamit dikkee Bira Sène mooy euh, moom la ñu confirmé mu nekk njiitum euh, CNG bi dinañu gis tamit ci biir euh, boobile bureau ñu ci mel ni aadama Diop Aziz Gueye Manga 2 Isabelle Sambou muy jigéen bu njëkk bu yor wàllum sport ci ci CNG bu lutte ko ci Quotidien mi ngi xëyee ci euh, Mendy mi nga xamante ni jàpp nañu nii dafa insubmersible ci waa ci euh, jàkkaarloo ko Gomis ak tamit ay arrêt à l'appel yoo xamante ni def na ko ci biir a match boobu nga xamante ni ci la génn lii la xëtu yéenekaay yi dikkee woon euh, tey ci ci journée bi. jërëjëf xëtu yéenekaay yi wér na wóor na ah tegu na ci yoon aussi alors dañuy dem rek sama mbokk internet yi nañ commencé nañoo fi mu ne nii commencé nañoo yëngu ci ci ci ci ci commentaire yi Babs bàyyi ñu. bas nee naa la nga bàyyi ñu bas bàyyi ñu de baax na may wax mu naan rapidité efficacité ah